parce que mm. tam ñu ngi si mm. ko dañoo nekk si benn air bu doy waar mm. xam nga yàlla débat si autour du wahhabisme ak yooyu yëpp provocation ak yeneen jamais la diine gi rek la mm-hmm. am na lu xam-xam moom ku ko yor mm-hmm. di nga tontu nit te doo ko doo ko xas doo ko saaga donc violence boobu matu ko fi lépp looy tontu rek tontu ko si gis nga ay ustaas yoo xam ne ñu ngi toog si télé di ngàmbeeku tafsiru quraan ñu ko duñu dañuy mhm. xaste dañuy gaaruwaal di manque de respect euh, waaw di manque de respect aux xalif généraux et principalement mhm. aux xalif général de Tidiane Sëñ Babacar Sy Mansour il faut avoir le courage de le dire def naa ni ñooñu baax na tey ndaw ku mel ni ndaw yu mel ni ñun mhm. ak ndaw yu ñuy formé ak ñu fi leen di formé ñu war a mën a am xam-xam goo xam ne taa ñu mën a tontu nit ki avec respect et sans mën ko mën ko mën ko jàpp foofu laa doon insister et c'est important c'est important je pense que ñun tey ndaw ñu ñoo war a rôle mm-hmm. euh, ku ku joxul respect suñu xalif généraux yi ñun tam ñu bañ la jox cër euh, mm-hmm. man euh, daal na ma ren je vais le dire mm-hmm. am na ku ma si dajeel mu ne ma doomu nuyu ma ko du la nuyu parce que joxoon ñu cër voilà donc donc defe naa ne nag ni ngay waxee nag ku amul kilifa waaye <laughs> dina di sa kilifa te defe naa ni tey nii Touba Tiwaawan ni ñu jokkalante Medina Baye Tiwaawan ni ñu jokkalante Yoff ak Touba Tiwaawan ni ñu jokkalante kenn mënul dugg si diggante il faut que ces pyromanes là yi nga xam ne ils la recherche de prébande mm-hmm. ils sont à la recherche de strapontin mm-hmm. ñi nga xam ne ils sont à la recherche de buzz mm-hmm. ñu xam ne nag dafa am benn frontière boo xam ne dañ fay yem parce que tey ji nii euh, ñooy lëkkaloo ñun jeunesse waxuma la tiyaan xadara gi kese waaye la jeunesse musulmane du Sénégal averti responsable xam nañ nu ñuy taxawee tey ñooñu xam ne ñu leen di tontoo pour ñëwaat nag si sa question